نون والقلم وما يسطرون mbokk jullit yi ci tënk bu gàtt ginnaaw bi ñu nuyoo mbokk yi fi teew yépp jiital ci sëriñ bi nga xam ne moom lañ dara jaale bis bi muy Ceerno Samassa ñoo ngi nuyu imaam yi fi nekk fii ci maasam di nuyu jàngalekat yi alquran yi di nuyu euh, administration bi ñu leen fi teewal yépp muy sulta idaariya bi waaye di nuyu itam euh, ministère de l' nationale nga xam ne ci leen fi teewal mooy iya bi di nuyu mbokk yi nga xam ne nag ñoo waral lépp te mooy suñu candidat yi dañ suñu ginnaaw te bind bind mu rafet mi ba tax ñu daje mbokk yi euh, c 3 ci njiitul Alhaaji Sëriñ Seck mi ngi leen di nuyu ñu koy jaarale ci rakkam bi ñu nekkal ci suñu ndeyjoor muy sëriñ fàllu mi jëwri ci liggéey bi kàddoom dana ñëw ci turu sëriñ ndax cat yu yaam yoo xam ne ameel nañ leen ko rawatina waa maatam gi ñu ñëw tey mbokk yi xam ngeen ne alquran mooy léppi àddina mooy léppi àllaaxira ndax li ñuy wut fii ci àddina ci alquran rek lañ ko mën a amee boo génnee alquran tuuti ngay am ci loola waaye am li ngay wut ci àddina lépp ci alquran lañ ko mën a amee ndegam da nga ci am loola sax boo boo fi bàyyee alquran àllaaxira taxul ñuy wax moo tax cheikhul xadim di wax ne inna tilawata alkitaabi mulku wa huwa liman yabghi najaata kulku man yuridu najaata fi l فليتمسك بالقرآن الكريم لأنه هو الفلك الموصل لشاطئ النجاح والنجاح fii ci àddina it benn pouvoir bu tiim nguur yombu wax moo tax mu ne fii ci àddina it boo dee jàng alxuraan te nekk ci dëgg-dëgg nee na ci nguur ma nekk nguur dara jiituwu ci xol bu sedd ak xel mu dal alaa bi dikrillahi tasma innul kon alquran mooy léppi jullit loolu nag moo tax sharika bi ci xalaatu Serigne Seck ñu gis ne alquran mi ngi yaatu ci Sénégal mokkal gi bari na tajwid bi itam ni mu ñëwee mësu ñëwee mbaa xamuñu ko ñu ngi koy jàng ci anam yu yaatu te rafet waaye seetlu bi mooy bind alquranul karim daara yi defatuñ ko donga yi bind na bind mi wàññiku na gox yu néew ñooy bind loolu nag ak jullit bu ko seetloo te am jumtukaay yum ci man a defe loxoom da cay woote def ko ñi ko ci mën a fekk fekk ko ci loolu moo waral initiative bi muy mubaadara bii biñ ko tàmbalee nag bii mooy ñeenteelu édition bi at mu jot ñiy participer gën a yokk waaye mbind mi it qualité bi di gën a rabet ñu tënk ko nag ci ñetti poñ ñetti tomb salaatu niqaas yoo xam ne benn bu ci nekk moom la wutal ay maayir muy ay nattukaay ay dawaabit yoo xam ne ci la ñuy xàmmee kii ku koy neexal foo koy teg ñu ne kon concours bi ki ciy bokk day mokkal alquran ki mokkalut mënu cee bokk buy bind it mbind mi du ko xool du ko xool ci benn téere ndax nit mën naa mokkal alquran bind di geestu mooy geestu da xool ci téere bi ñëw bind loolu du ci am beneen bi ci des mooy bind mi day rafet dawaa bi yi nga xam ne mooy rafetal mbind wut tënk nañ ko lu mel ni ci insidaad wala intimaasu xarf lu mel ni almiimu wala waaw wala yu mel noonu mu intimaas maanaam mu gëmm bañ a xoole wala xaraf iltisaaqu xarfin bi xarf xaraf woo xam ne dafa taq ci weneen wa te dañ waruñoo laalante boo bindoon ruuna raa ak waaw ak nuun benn warul laal borom ji bu ci laal borom ji kon mbind mi dafa tooñ dafa jalgate kon na dëppoo ak al al rasmul usmaani al mu'tamad rasmul usmaani yi yaakaar naa bu ñëwee fii Fuuta kenn du fi di fi leeral lan mooy rasmul usmaani yi ndax xam nañ daara yi fi nekk ni leen yàlla mayee ci quran ak ni mu leen mayee ci rasmu ak dopt ba taalif ay sax am na fi rasmul usmaniya yaakaar naa ñëpp xam nañ ne idafatu tashrif la buñ koy askanale ci seydina Ousmane mooy ci yaatal bi ci ñëpp jote moo ko def mu jóge ci téere bi nga xam ne dajale woon nañ ko ci jamono seydina Aboubacar mu tawseex ko ci anam bu yaatu ba nga xam ne gox yi ci jot ci lañ ko jote kon nusxa boobee nga xam ne moom lañuy ñuy sukkandiku ci al alamul islami yi ci bind booy bind da nga jëy tënku benn ba ca des mooy dangay ngay mokkal alquran mokkal ki niñ koy xamee ci bind bi mooy doo am ay axta lu war a dàmm nga dàmm ko lu war a rabaa nga ko doo jël baat doo yàq baat doo doo runge loolu yépp da cay nekk mbind miñ miin ci Sénégal tam muy loxo yi nga xam ne moom lañ miin a bind ci Sénégal ci ngay binde muy alxatul mahalli doo bind mbindum Tunisie doo bind mbindum Maroc doo bind meneen waaye miñ miin ci Sénégal ci lañuy ñuy taqyim sa kitaaba sa sa ci lañ ko taqyim kon ñett yooyu moom la ñu wutal ay maayir yu wér yoo xam ne ay borom xam-xam commission scientifique bi nga xam ne yàlla dogal na mbokk yi dénk ma ko ma jiite ko waaye ànd ceeg mbooloo moo ne turu jiite gee fi ne waaye liggéey bi yëpp ñoom ñoo koy def waaye loolu nag ñi fi teew bariwuñ waaye dañoo teewal ñeneen ñi ci des sëriñ Mbàkke Surak mii di wax ci la bokk kii di sëriñ Moxtaar Kebe dana dana ñëw ak yéen moom itam ci wàllam ci liggéey bu am solo bi moom itam ci la bokk euh, sëriñ Abdou Seck moom itam ci la bokk kon bala ñoo jàll it ñuy joxe cant gu mat sëkk goo xam ne ñu ngi ko jëme ci Euh, Thierno Ousmane Diamy nga xam ne moo ànd ak ñun liggéey bi fii ak euh, Thierno Ahmad Tidiane Sall nga xam ne ñooy coordonné ñoom ñaar gox bi yëpp ñoo koy taxaw ñi nga xam ne ñoo ci nekk nag muy président Moustapha Amadou wan ak ñeneen ñi mu bokkal euh, fédération ak ñi mu bokkal gox bi ñoom itam ñu leen di jagleel cant bu mag a mag ndax gis nañ taxawaay bi nga xam ne taxaw nañ ko ci ba liggéey bi egg si fii mu egg leen li ci def ci ay jant yaatu na lool lool lool waaye am féetale nga xam ne ñoom ku ñu war a sant rek danañ ko tudd insha allahu taala wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun